alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammad alfatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naasiraq bilaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala ali xaqa qadri wa miqdaari azim ama ba'du alhamdulillahi rabbil alamin ginnaaw bi ñu sante yàlla di ñaan yàlla mu julli ñu ci yonent yàlla muhammad di dellu sant yàlla bu baax ci may gi ñu may ñu fekkaat bisu tey bii seen tele référence TV seen émission bi nga xam ne mooy bu taaha di jaay jëfal mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi doon taaxilu émission bii di xut bu taaha di ñaanal yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla ñu nekk ci hôpital yi yàlla yàlla dool leen tawféex ñi nga xam ne caabi fete ne ginnaaw yàlla yàlla delloo seen kër yi di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ci biir bàmmeel yi yàlla yàlla yërëm leen leeral seen bàmmeel bi jaay yéen saa salaam di am mbégte loolu di ñëwaat seen émission bi nga xam ne mooy bu taaxa tey ñu dalal fi ay borom xam-xam bu ñu naan imaam Oustaz Lassy sàmb di boroom xam-xamam di ko di ko jaay jëfal bu baax a baax dalal fi tamit ñi nga xam ne ñooy waa kër yonent bi ku mel Seydina Aline Diop imam Mansour jàlloo su ko defee ñuy jaay ñuy dalal suñu sëriñ imam Lassi bisimilah imam ñu ngi lay wax asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. ñu santaate yàlla di julli si Yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaanal suñu ñaari weejur di jiital nuyoo si imam Khalifa ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay. imam ñu ngi la di la bu baax. di nuyu tamit ki nga xam ne mooy borom kër bi maam góor jazaaka ak mboolem ñi fi nekk di liggéey yëpp mhm. cameraman yeex ñëpp mhm. di nuyu suñu soppee yi suñu lépp sëñ Mansour Diallo ah sëñ Alioune Diop mhm. waaw ah jaajëf imaam ñu ngi lay ndokkale bu baax a baax di la ñaanal yàlla bu baax di ñaan yàlla yàlla yàlla may la nga tàmbali si bisimilahi rahmaani rahim eggale ci alhamdulilahi rabbil kon moo ngoog seen émission xul bu taaxaa tey ñu am mbégte lool dalal suñu sëriñ di oustaz Lassi Samb xam naa dinañ dina gën a yaatal léegi ci biir waxtaan bi tamit ñoo am fi ay invités yi nga xamante ni ñoom kenn du dem bàyyi leen ginnaaw di waa kër yontu yàlla Mouhamed comme ni ma koy waxee faral di waxee sama sëriñ Sakho Ilimane muy ñuy dalal di am mbégte di leen dalal Hadji Mansour Diallo ak Seydina Aline وبصاحبي خاتم فابن علينا حسنا ممضنا وبصاحبي قد عمق إميلا يا مدنا لنا ربي حسنا yaa nu xamal yónneen inna rubu ab sharati wa amanati wa rabbi xalbi wa ya xayra siya صاحبي وختام قائمي جلف مننا جلف مننا ربي جلف من يا نخام الين ودم وإيس مودة ربو ربو جار وجاره من خريب السهام برم قاينا وبصاحبي وقدامي قائمي جلفا ما يرى مدلل Maodo yaa nu xamal yónneen ma عازلي لو خست علم الله ركع يا نانا والأزلمي مثله لم يكن بها الموت برم سنتنار وبصاحبي ووقع تعميقا وبميلون فما يرى مبنى moom Maodo yaa nu xamal yonnan awxa wa awfa xutbuna wa imaamu jul faama nee na awxa wa awfa xutbuna jul faama زرا وهجا من جميع الأرض ونقرم قايرنا وبصاحبي ووقع تعمقا بلا الفم يا رب لا لا لا yaa nu xamal yónneen wa bi xayrihi wa bi xayrihi jalabal wara wa bi xayrihi jalabal wara wa bi xayrihi جلب الورى وبخير جلب الورى بخير جلب الورى جلب الورى ولمن أجاب خير ما بصاحبه القدام قائم ينفع ممرا ابن على أنا وكر يمن من إني أتيتك بسابع أسامي ولا يعني yataytuka labisa dëkkal mam Maodo borom gaaya nee na inni inni ataytuka labisa bi asa borom gaaya nee inni waaw ataytuka labisa bi asa suñu mam Maodo nee wal ali was amin saxbi بالكرام جميعهم ما لاق باخر aw budd sunu maam maami borom gaynde wa bi saaxibil wawaw atami xaatimi loon borom gaynde njaay am loon alay man ah jaajëf Mamour Sow ñoo ngi lay jaajëfal bu baax baax di la ñaanal yàlla yàlla yàlla wéral baat bi di jëfal bu baax a baax di nuyu ñi nga xam ne ñoo ngi safoo seen télé référence TV mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi toog seen kër di seetaan tele bi nga xam ne di référence TV te faral di wax ne bu ñu nee référence dëgg dëgg dëgg ci nit ñi mooy yonent yàlla Muhammad moom mi nga xam ne yàlla moo ko fi teg ne kuy xool rek xoolal ci waa ji maa ko yebal ndax innama bu'istu li yatamma makaarimal axlaaq yi yonent bi ne yàlla damaa wàccee ngir may fekk nit ñi toog ma jox leen jikko yi tedd yi kon boo leen ñu bëgg la ci yonent yàlla moo xam ne dañu jaay jëfal bu baax a baax fi nga xamante ni mooy émission di xutbu taaha TV te imaam la si ku ne xutbu taaha wax yonent yàlla Muhammad te li ma gën a neex si seen way mooy benn béy bi nga xam ne wax nañ ko yonent yàlla Muhammad te ci laa ibbeeg yow ci ci débat waxtaan bi ñu war waxtaan nga xam ne wa bi xaylihi mm-hmm. wa bi xayrihi mm-hmm. jalabal wara waaye wali man ajaaboo naylu xayrul maraam ñii dañoo wut ci yonti yàlla Muhammad ngir diina ji metti woon na loolu imaam yonent bi sallallahu takk naaga fekk leen ombal leen ni kaay leen jébbalu wuy seen borom ñii ci politique bu baax siyaasa bu baax ci lañ gisee yonent bi ànd ak moom ñii jikko yonent yàlla Muhammad moo leen convaincre pour ñu dugg ci diine te imaam moom ñu bëgg waxtaan tuuti ci wàllu jikko imaam la si ci wàllu jikko nga xam ne tey lu tumurankeel tey ci jamono rawatina réew mi di réew Sénégal te jikko ñaar la mooy am na jikko yoo xam ne jikko yu ŋàññ la mooy jikko yu baaxul ñu baal moom am jikko yoo xam ne di xusnul xulqi di jikko yu rafet yi nga xamante ni moom lañ soxla ci nit ki ndax waykat bi daa waxoon ne laysal yatiimu alladi qad maata waalidu inal yatiima yatiiman hilmi wal adab mu ne sooy wër jirim dëgg mooy ko amul xam-xam amul teggin te loolu yëpp jikko moo ci yóbbu nit imaam loo may loo may waxtaan ci wàllu jikko waaw eh, sëñ Xalifa mhm. jikko suñ ko waxee mhm. mooy loo xamante ne dafa nekk si doomu aadama mm. waaye dafa aju si wàllu mbaax mhm. olof naan jikko jikko maanaam dañ ko fa dañ ko fay ji mu doon lu baax waaw lu ji mel ni masala nga jël eh, li nga xamante ne moom mooy mboq ñëpp xam nañ ne mboq lu baax la nga jël nga daal di ko ji mu daal di sax mooy loo xam day nekka nit ki benn mën na doon jikko loo xam ne lu baax lay doon mën na doon loo xamante ne safaan lay doon. waaw ah, mooy jikko. mooy jikko boo gisee wàllu yàlla boo fay dem sax dafa am jikko yoo xamante ne day day dañ bu jikko yooyu dañee yeneen jikko daal di ñëw gane si la loolu moom moo lay def li nga xam ne moom mooy nitu yàlla. Hmm. xamoo yàlla dafa wax fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hmm. dane doomu aadama maa ko yenkewal. mel ni dañ ne lan lañ ko yenkewal maanaam maa ko defal. fu juuraxaa maanaam jikkoy kàccoor bi ma ko defee loolu jikkoy kàccoor pe defal ko fa taqwaaxaa ragal daal di indi faa u sabab yi daal di indi fa taqwaaxaa ragal yàlla door a ñëw nit ki mënul yor jikko bu bon ba pare doon nitu yàlla déedéet dafay am jikko yoo xamante ne dafay nekk si nit ki mu doon jikko yoo xamante ne dañ ko ŋàññe mas mooma mhm. ñu fexe ba tarbiye la moo tax nit yàlla dañ lay tarbiye bu ñu la tarbiye mhm. tarbiye bu ñu lay tarbiye nag mhm. jikko yooyu daal di dañ jikko yu bon yi léegi jikko yu baax daal di ñëw boo xoolee yente eh, yente bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam lu tax ñu ne afdalul xalq moom yent bi wala xayrul xalq yàlla avant mu koy tagg dafa am lu mu ko njëkk a wax dafa am lu mu ko njëkk a nattu ay nattu yu mu ko teg yent yàlla Muhammad dafa am fu mu jaarax moom Mm-hmm. kon nit balaa ngay seedax moom jikko yu baax il faut nga am foo jaarax moom ba pare mm-hmm. boo gisee Sal Hadj Malick mu ngi koy junj na ala ya rasulallahi yaa afdalal wara mm-hmm. mu mel ni bu ne ar rasul mooy ay yenent ah. ar rusul mooy yenent mooy mooy yenent dina ala eh yow yenente bi yàlla mu mel ni mbooloo yenente ñoom ñoo doon dem mbooloo yenente yi bi ñuy dem mu ne alaa yëgoo ma yëgal yaa rasulallah e yow yenente bi yàlla bi gars yi dem bay gest mu ne yaa afdalal wara e yow mi nga xam ne yaa gën ci yenente si yenente yi te xam nañ ne kii gën si moom mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu tax yàlla mu nekk wa innaka la ala xuluqin azim yow giñ naa ne yow seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm. jikko yu tedd yi mm. jikko yu màgga yi mm. jikko yu tedd yi yow yaa ko kon bi ko yàllay tagg da ko tagg ci jikko si jikko la ka li ka la ko tagg hmm. te boo xoolee euh, yenente bi salaa salaam bi muy ñëw màkk hmm. bi yàlla defee mu commencé di woote ñi ko gëmoon doon ñu tuuti woote na wàllu tawxid pendant treize ans wala dix ans mu wootee na yàlla def si moom ñett mu def ñett dafa am binaa u aqaid mhm. daf binaa u ah, axlaaqi mhm. daf binaa u tashrii mhm. mooy yooyu boo xoolee yooyu noonu dafa dëkka dëkka dëkka instauriser si doomu aadama da dugal si doomu aadama moom la binaa u sax si mooy reconstruire doomu aadama da ko jëmbat ci ñoom doomu aadama dafa am lu muy manqué ñu def ko si moom mooy lan li nga xam ne moom mooy tawxit mooy wéetal yàlla ragal yàlla la njëkk a def si doomu aadama hmm. bi mu si paree mu def binaa binaul axlaaqi fexe ba tabax jikko yi bi mu tabaxee jikko yi nag jàng door ñëw kon su ma déggee sa wax tawxit moo njëkk si nit ki moo njëkk si nit ki maam luy tawxit tawxit euh, mooy al ifraat hmm. mooy bi fexe ba wéetal suñu borom wéetal suñu borom xamoo borom lax dara dafa wax ne awalu maa yajibu alal mukallaf tasxiixu imaani lii njëkk a war si mukallaf ka mooy mukallaf mm-hmm. bu dee góor mooy ki nga xamante ne bu tëddee day gént mm-hmm. wala mu am karaw naxa am karawu poqantalaan yu wane ni muskalaf la waaw bu dee jigéen bu fekkee dafay gis reegal mm-hmm. euh, mu ne lii njëkk a war si kooku nag mooy tasxiixu imaan fexe ba wéral nga kon li nga xamante ne moom mooy taw tawxiid dugg na wéral nga mooy lan doomu aadama war na xool moom takk takwinul basariya moom formalité imam bi nga xamante ne moom la ko yàlla def ndax yàlla dana ko alam naj'al lahu aynayn wa wax wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn yàlla dafa jël anam biu jën a rafet mu tappal ko doomu aadama mooy def ko kanam mu rafet def si bët def si bakkan def si nopp def si làmmañ ak ñaari tuñ melo bu rafet la bindee melo bu rafet kon loolu mooy fara moo tax yàlla ne wa fii am anfusikum afalaa tubsiruun yow doomu aadama xoolal sa bopp ni ma la bindee kon kooku day dellu si tasixu imaan yi mm-hmm. yàlla ne xul unzuru maaza fi samawaati wal ardi yow doomu aadama xoolal ni ma bind mbooleem lu nekk si biir asamaan ak suuf tey boo xoolee asamaan mm-hmm. tey doomu aadama mm-hmm. bu demee ba yàlla may ko xel mu mën a defar li nga xamante ne moom mooy avion te da koy imiter si li nga xamante ne moom mooy. Euh, picc picc ci picc mooy appareil. Mm-hmm. volant imitant oiseau naturel. te mm-hmm. pourtant alxuraan wax na ko. Mm-hmm. yàlla dana awalam yaraw yi ila tayri fawqahum saafatin wa na maa si ko yumsikuhunna illa rahman innahu bi kulli shay'in basir yàlla na xoolal xanaa doo gis si picc bi nga xamante ne moom mooy naaw si kaw jaww ji te dara mënu ko laal lu dul ñun suñu kàntan kon yaa ngi ci tawxiid ba léegi. boppam moo tax kon ya borom ndax dina la tasxiixu imaan na nga wéral sa ngëm. Hmm. xool beneen bi doomu aadama fikriya hmm. xel bi nga xamante ne moom la ko yàlla jox. te wax nañ ne al aql mizatul insaan. moom xel xel mooy soos bi nga xam ne moom lañ mën a distinguer ndax ci nit la wala du nit. Hmm. ndax nit bu solee ay sagar romb si dañ naa ah kii de xel bi dem na mala nit bu jëfee jëfu mala dañ naan kii ndax nit la wala mala la mm. kon al aqlu misatul mooy chose bi nga xam moom la ñuy distinguer ndax kii nit la wala du nit nga xool xel boobu yàlla doomu aadama mm. mu jox ko ko muy delluwaay waaw mm-hmm. ba doomu aadama mm. di si mën a créer lu nekk kon day dellu si li nga xam moom mooy tasxiixu imaan léegi nag ngëm mm-hmm. dañoo gis ne doomu aadama ngëm dafa forcé moom moom doomu aadama bi waaw boo xoolee ba si saxaaba yi sax lu tax ñoom ba ñu demee Badar ñoom ñu doon daanaka téeméer yéeféer yi doon mille mais seen ngëm-ngëm moom moo leen poussé ba lu ñu gis rek pour ñoom mën nañ ko faagaagal seen ngëm-ngëm seen doolee ngëm moom moo leen may jàmbaar ko ndaxte benn hmm. euh, dañ leen wax ne ñoom dañ ko daan wax sax hmm. dañu wax ne benn yéen yéefar yi ngeen rey ñu ñu dem àjjana wala ñu rey leen ngeen dem safar ko ñoom gëm nañ ne ku si dee inna allazina amanu wa amilu salihat lahum jannatul firdaws nuzula seen wàccuwaay xaalidina fiha laa yabuna anha xiwala loolu manqué na tey imam waaw tey taw tawxiid bi ñu àndaloon waaw am gëm-gëm tey boo xoolee li may faral di wax ñu bëri mhm. maam situation jamono li muy métti métti yëpp mooy nit ñi mhm. gëm yàlla gi ñu war a gëm yàlla muy tawxiid gi ñu war a dëggal gëm ko mhm. kon des na imam waaw des na kon yaa ngi tawxiit nga ne yentu bi saa sallam li mu njëkk def ci nit ñi mooy dafa njëkk a def ci ñoom tawxid waaw bi mu jógee ci tawxid fu mu jëm ak ñoom dafa jëm si ñoom si jikko ah. xamoo eh, yéefar waa màkk yi mm-hmm. dafa am luñ doon jaamu liñ doon jaam mooy ay xërëm ay xërëm beneen bi mooy ku ñu ëpp doole dañuy dañ lay dogaale abdu kalpe la nangu sa alal maam lambi golo moo fa moom daal. waaw beneen bi ñuy seeyax jigéen yoo xamante ne ñoom ñoo bokk ndeex baay wala seen i doom. Hmm. léegi nag fexe ba yàlla ñëw dindi loolu. bu jaarale ko si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jikkay jikkay jaahil yooyu. Hmm. moo tax yàlla wax ne wala xat ba as naa fii kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibu taaxut yàlla ne dëgg-dëgg wala xat ba as naa ñun yàlla ñun ñoo yónni. Hmm. fii kulli ummatin si bépp xeet. rasulan ndaw ani abdullah ngir ñu jaamu yàlla wajtani bu taaxut ñu fexe ba bàyyi li nga xamante moom mooy taaxut moom mooy xërëm yonent bi mu ñëwee salaay salaam fexe ba génn jikko yi nga xamante ne moom mooy jikkoy jaahiliya moom la fexe ba rey li nga xamante moom mooy lislaam buñ ne lislaam nag jikko yu baax moo tax ñuy wax hmm. waaye yeneen tey bi mu commencé di ko samp hmm. yàlla daka nattu. comme yéen saa comme ba pare natt nag ay saxaabam yi nga xamante ne ñoom ñoo ko topp. moo tax diine boo koy boo si nekkee te yow amoo nattu xamal ne yow sa diine des na sa ngëm-ngëm des na. kon nattu daal jullit bi war na koy xaar ci boppam. waaw xam nga dafa bokk si si ngëm. si ah. ngëm ay al iman. Hmm. xayrihi wa sharrihi mooy lu neex. Hmm. bu la yàlla mayee xéewal nga sante ko ko hmm. bu la yàlla nattoo nga sante ko te xam ne natt boobu bés bu dañee xéewal moo si tegu am déet mu nekk nekk na loo xam ne lu jafe la waaw maanaam nangu nangu li yàllay dogal ci nit ki waaw loolu nag loolu nag moom moo jafe sëñ Mansour hmm. loolu moo jafe bi bi loolu amee euh, si Makka kubaraa u Makka yi akaabir yi ñi nga xam ne ñoom ñooy noobuli gis na ne am na benn yeneent boo xam ne moom moo fi ñëw te yeneen te boobu bi mu ñëwee li nga xamante ne moom lay tere. mooy fexe ba. ñoom seen aada li ñu baaxoo di ko def. te nga xamante ne yàlla gërëmu ko yeneen bi gërëmu ñu bàyyi ko topp li nga xam mooy lislaam te xam nañ ne lislaam du leen arrangé. mooy taaxut yi ñu topp mooy. xërëm yi beneen bi ak yeneen jikko yi mooy abdu abdu kalb pour jël alalu. nit ñi nit ñi tout seen deret taxee pour pour jël rawatina seen ñu baal ma mooy mm-hmm. jël jël ab bant yett ko jàppee ko yàlla jàppee ko yàlla xam nga ko jikko ju suufee la waaw loolu moom moo tax moo tax moo tax góor gi ne wa bëx de sabbin wa tadlilin mm-hmm. wa tashfiqatin ax fawlu kullama ax fawlu min alami kon maam jikko yu suufe yooyu nga xool nit daan na ko dund mm-hmm, waa léegi xamoo foofu li mu leen di jàngale moo di ne yàlla mooy maye yàlla moom mooy xañe yàlla bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam commencé instauriser jikko bu baax hmm. bi mu commencé instauriser jikko bu baax mag waa Màkka yi commencé nag di ko amee ku ma ni Abu Jahl hmm. ku ma ni Walid ibnu Mughira hmm. Umayya ibnu Xalaf demoon na si bañ giñ ko bañ moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam invité nañ ko nañ ko biñ ko invité Umayya ibnu Xalaf bi mu ko Ubayya ibnu Xalaf bi mu ko invité yonent bi sallallahu alayhi wa nekk tant que gëmoo li ma gëm duma la duma la lool duma la ñëw fekk si mu am si ñoom yéefar waa Màkka yi ne bi mu la ko waxee defoo ko dara mu ne dee def mu ne ko balaa may gëm na ne yow bokk su ñun nga bokk da ngay fexe ba dem ba si yonent bi sallallahu alayhi fa mu fa mu dem sallallahu alayhi wa nga tufli ko nga mbaj def ko loo xamante ne ñun seen xol dina sedd ñu jël ñenn si nga xamante ne ñoom ñooy yéeféer yi àndax moom daal di dem wax tufli ko ba pay poñe ka yonent bi fekk nañ ko sax muy muy muy julli ñu fexe ba jël tànk yéeféer yi jël seen tànk teg ko si kawam ñu xoj ko ak mbuubam ba sayyidatuna Fatima moo dañu di xëccanteex ñoom mm. waaye euh, Abdullah ibnu Mas'ud mm. dafa wax ne ña def loolu yomal uxut xaw yomal badar ci ñaari xare yooyu gis na leen ñu rey leen kon yonent bi kenn du ko toroxal wala sa xayru wala yu bi sayi atin yax fu wa yasfaxu safan an musi ihimi wala seex alxaaji Maalik wax mooy mu ne walay sa xayrul wara hmm. déet ki nga xam ne moo gën si mbindee fi kookoy bi sayi atin muy fayan lu bon mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu kon nga dégg ni kon war tollutuñu foo xam ne diw bu la defee nga def ko xam nga dangay dégg senegal diw ne diw dina xam ne gënumaa dof mhm. gënumaa mbaame mhm. dina xam ne ñu fii lañ bokk mhm. nga xool ni defante gi xew senegal diw bu la defee benn bu ñaaw yaa ngi def fukk yi ñaaw nit su la benn bu ñaaw yaa ngi ko xool fukk yi ñaaw imam waaw xamoo maa bëgg ñu ñëw senegal xamoo jikko yi waaw dafa yàqu jikko yi jamono yi ñu toll nii jikko yi moo yàqu koo wax mu ne damay defante bañ nañ ko bu nit di sëy sa danaan damay dem defet ah. waaw waaye

waaye nag bokk na si li muy li li mu fiy bàyyee. Hmm. mooy mbon mbon doomu aadama. bu ji bu jëlee fukk yëf yooyu. waaw te boo xoolee falañ yem falañ lañ hmm. toll bu ñu demee ba rey yi bëri. ah bëri na lool. agression yi bëri ngir lan koom-koomu àdduna. Hmm. te nit ku ne. bala yàlla dugalee si sa biiru wéejur si la si la bindee li nga xamante ne moom ngay am. li ngay dund. fa lañ koy fa di bind wërsëg li nga ci am fa bind nit ki ndax texe na wala texee dina fa lañ koy kii kon doomu aadama jarul yenn moo tax walla basata allahu risqan li ibadi la baaw fil ardi ñu yunazilu bi xadri ma yacha loolu la alquran wax dëgg la yàlla dafa wax ne su ma jëloon suma wërsëg tàllal ko doomu aadama mhm. su ma jëloon sama wërsëg tàllal ko doomu aadama mhm. da ngay gis ne dafay baw si kaw suuf mhm. waaye man yàlla nit ku ne euh, selon la muy yelloo moom laa koy wàccal nit ku ne selon la léeg nga gis nit koo xam ne yeneen fowandoo sang ju sangandoo géej fubalandoo nekk su lu ne yàlla ibbi këram mu commencé yow mu lay mu lay diir mbagg wane ne yow tekki woo nangu jafe na de ah, am déet ñaata nit nga jàngandoo école wala nga jàngandoo daa wala ngeen bokk benn métier mu dem ba yàlla ibbi kësi bu ko si yàlla ibbee da gis moom day wane ne carrément moom moo la devance moo tax modestie dafa baax si doomu aadama yonent bi sallallahu alayhi li ko ñëpp a nawee yenn kilifa yi li leen ñëpp a ku man ni maam Abdou Aziz ku man ni sëñ Sallou man hmm. yàlla dafa def maa Abdou Aziz ak sëñ Sallou dafa am benn image bu ñu may jox ndege seen modestie moo tax man soppaleem bëgg dëgg la toujours dama koy wax <laughs> dama leen bëgg cofeel boo xamante ne maa de taa ndege seen modestie hmm. ku xool maa Abdou Aziz mës hmm. naa dégg si Pamata Kebe mu ne dafa am benn jaaykatu soow boo xam ne moo ko daan jaay mu ne ko damay ngénte hmm. mais jaaykatu soow foogoon ne na sax du ñëw si ngénte dafa maa Abdou bi mu fekk côté yëmbal la dëkk maa Abdou sa 9 ba presque di xaw ma di xaw ma une daal si lay door a xam kër gi. bi mu ñëwee waaj femme bi dafa tiit. imagine ah modeste am ah ni mu doonee xalifa diin. dem fekk ji ko dem fekk xool sëñ Saliou. Mhm. daraja bi ko yàlla may. Mhm. mu am limousine. Mhm. mu jël limousine bi nañ ko yóbbu tool. ñu ko yóbbu tool mu jël li nga xamante ne moom mooy. ay ay ay gett ay gett dugal ko si biir. gaa yi di wax xool ñooñu ak daraja bi ñu am. moo moo tax ñu ne àdduna bala nga kaa dëddu. Mhm. da ngay bàyyi ba am. Mhm. parce que damay faral di wax ni borom xel ku yorul. Mhm. xel mi day rafet. waaw waaye nga yor. def li nga xel li nga xalaatoon bi ngay ñàkk yor. jafe ni maam. boo xool ni ñooñu. dañuy jàngal tey ndaw tey. ni àdduna ñu cee war a nekk. benn bi nga njëkk wax nga xam ne yonent bi mënul njëkk a def ci nit ñi. mooy nangu ni tawxiit nangu ni tey li yàlla def ci nit ki. nit ku ne gëm ni ñoo yàlla noonu xasam naa ñun yàlla ñoo séddale mm-hmm. kenn ku ne la nga war a am nga am mm-hmm. ñaareel bi yéen bi li defaat ci ñoom mooy jikko sànq ma wax la ci léegi mu ne imaam mm-hmm. yéen jikko yi nga xam jikko yi nga xam ne lislaam sax ne daka ngàññ yi yéen jikko la imaam waaw xamoo borom lax dëri sax da koy wax mu ne xaraam na si mukallaf si njëkk la dafa la fen dégguma de fen maa nit ki wax lu dul dëgg lu dul dëgg waaw waaye léegi imaam. na dafa xaraam. léegi kii kii waxal nit ki lu dul dëgg. waaw ngir alal nag. ngir alal waaw kooku maam dama lay jéem a yàqal ñu baal ma. waaw mooy li xew tey mooy yàqal ma diw ma fay la. waaw xamoo loolu boo xoolee même ba si réseaux sociaux yi sax bëri. Mhm. Eh, gis nit koo xam day téye gor gu set wecc. Mhm. ko loo xamante ne weñ bu tak tak si deram. Mhm. daanu si suuf ngir lan yàqa deram rek nit ñi am benn bët bu ñu koy xoolee. muy mel ni yi nga xamante ne moom mooy xew si jamono. Mm. xamoo dañu wax ne njaaloo. Mm. moo gën ñaata yoon. benn jëw benn moo jëw benn ñëw. <laughs> feneen njaaloo da xool da mm. xool ñaati nit ñoo nekk. di jëw doomu aadama di yàq deram te ka ñuy jëw uh, melu noonu. yàlla wax ne wallazina a al muminina wal muminat bi xayri mag tasawu fax di taxmalu buxtaan wa isman mubina mu ne gaa yi nga xamante ne yàlla mooy wax de. dañuy lor. julliti góor yi jigéen ñi. Mm. si loo xamante ne defuñu ko. Mm. yàlla nee na yenu nañ dur bu mag a mag a mag a mag bàkkaar bu mag a mag a mag a mag. damaa dégg seen ceex ci almaktub mu ne Sénégal li fi manque mooy logique amatu fi. Mm-hmm. damaa toog benn waaye mu ne ma. pourquoi kilifa diine yi duñu wax man kilifa diine yi ku ma ci déggal wala ku ma ci xam doo wax. mu ne ma tax man parce que kilifa dañoo dem ba léegi. Mhm. xàmmetuñu jàññ ak joor. Mhm. kilifa diine su waxee sax nga gis xale bu ndaw. Mhm. làqu ci réseaux sociaux yi saawu. waaw xamoo imaam jikko yooyu tamit. Euh, ba démb xam nga barke démb maa ngi gis ñoo xam dañuy woote woon ne ay islamologue lañ. islamologue dañuy wane ne ñoom dund lañ diin euh, sunna la ñuy. référencé wu mais dañuy yàq. suñu xalifa yi mm-hmm. xalifa yi lu ne mm-hmm. te lii li ñu wax ne isa aradta an taskur uyubu ayrika faskur uyubu nafsik dëgg la dañu wax ne nit bu demee ba na ma wax ayubu jàmbur mm-hmm. moom soi même personnellement na xool boppam li nga xamante moom moom la làqu si ay ayib bu ko xoolee rek du mën a tudd du mën a tudda kenn kay ayibam mhm. mais suñu xalifa suñu xalifa yi en tant que yenn jullit da gis lu nekk lañ leen di yàq lu nekk lañ leen di wax te defuñu tinuñu te ku leen gis xam na ne ñoom defar rek moo leen tax a jot ndax gis nga ku mel ni sëñ Babacar Sy Mansour lan lañ koy dàkkante la ñàkk caaxaan mhm. te moom moo nekk si moom waaye dangay xool modeste bi nga xamante ne moom moo nekk si moom nga xool suñ Muntaxa foo xool mu foo fekk rek moo ngi mbégte moom toujours day ree rek mbégte rek dund te la la yonent bi salaa wax si nga ñaari jullit bu ñu tasee ku njëkk ku njëkk a tiyaaba yi nga xamante ne moom moo si moom moo si aju hmm. mais léegi dangay gis damay romb ab xilifa neexuma du ma ko bëgg sax xool ñàngal laa ko wala su ma koy nii sa catal baaraam laa koy kii hmm. kon jamono yàqu na zamanu qad irrahimi wallahi الزور والطافل والقود في المقارم والفشل والتشاتم يا ربنا يا ربنا إليك نشكو فنا وقال fii za zamanil muslimin Moussa yàlla yàlla fay toll si jamono boo xamante mbonte dafa tasaaroo mbonte jukko yi yàqu comme li nga wax si réseaux sociaux yi ni ñuy mobiliser fen mm-hmm. wala sos gor mm-hmm. pour am ci xaalis mm-hmm. man damay wax ne bu fekkee loolooy business. Hmm. man ne business boobu baaxul. ah gars yi ah, lan la yàlla wax ala laanatullahi alal kaasibiin. ñi dul wax dëgg. waaw si ñi dul wax dëgg. mais gis nit koo xam day yàq njiitu réew wala mu yàq njiitu diine. waaw maam maam imaam nga baal ma. Hmm. wax naa ko nag xam naa du neex a dégg. Hmm. dama dama ne leen même senegal bi ci gën a doyee nii. ñu baal ma nag parce que Sénégal dafa naqaree wax. soo waxee ñu ne diw la àndal àndal diw. waaye li ci mënti am dañu wax ak yàlla. dañu waxal yàlla rek tax. dama ne bi gën a tumuraanke mooy nit ñi fonk nu njiitum réew. te njiitum réew da nga ko war fonk. njiitum réew. da ko war wax naa ko nee naa njiitum réew daraja yi ko yàlla jox jox ko kenn ci réew ma. Mm-hmm. parce que mboolem ña nekk ci réew moo mm-hmm. ma ne njiitum réew soo moom dem ci dëkk. Mm-hmm. donte yow kilifa diine nga. soo àndee moom su mënee jiite population moo war parce que du musaafir. waaw ku moom bu dee kilifa diine donte xalifa général nga sax soo àndee ak moom dem ci dëkk ma nga doon musaafir. xam nga mais imaam léegi nga xool nit ñi njiitum réew ni ko nit ñi doy léegi. waaw xamoo moo lay wan ne jikko yi si boppam moo yàqu. Hmm. gis nga nguur yàlla moo koy joxe. ah yàlla koy joxe. te joxe bi du may abal la. Hmm. tu'til mulka man tasha. <laughs> wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Hmm. wala yàlla xul waxal yow Muhammad. sallallahu alayhi leen ñoom yéefar. allahumma malikul mulk moom moom moom nguur. tu'til mulka man tasha moom mooy jox nguur ku mu ko neex. te. nguur mm. bu la ko yàlla joxee bu la ko yàlla dénkee mm. boo doonoon ab yàccaara sax foo jaar di nga sawar mm. boo amul woon fit sax yàlla dina la jox fit boo amul woon alal yàlla dina la jox alal yàlla moo koy de yàlla ku mu ku mu liñ naan ku mu ku mu ku mu ku mu tung ku mu tungoj nga su say maas waaw nga waaw yaa ngi dégg mm-hmm. ndax yàlla moo ndaxte yàlla benn bu la jiitee rek mm-hmm. dafa am performance yoo xam ne koy def si yow yow nit ki waaw mm-hmm. dafay jox la benn daraja boo xam nit sax su la bañee mën na nekk fee di la waxal loo xamante ne du loolu mais boo na tëllëg foo jaa nga respecté kon suñu président bi nga xam ne moom moo fi ne yàlla moo ko fal te ba mu koy fal dafa gëlëmal ñëpp def si xol yi ne diw moo fi toog Macky Sall la moom laay moom laay kon lu ñu si man même bu la joxee nguur bu la bëggee wàcc moom suñu borom. day defaat si xol yi keneen koo xam da tax ñu déteste la ñu kii moo tax kon à l'heure actuelle. Mhm. ki nga xam ne moom la fi yàlla teg kenn mhm. mënu si dara. Mhm. nañ ne moom la fi yàlla teg. ba koroog mu fegal. ba koroog mu fiy jëkk. te tey may faral di wax nañ ñaan senegal yàlla def fi jàmm. waa te lii gën a doy waar. mooy boo xoolee la borom téere ba wax. mu ne kutibal mawt. alal xalqi fakkam falla min jam'in wa afna min duwal mm. ayna namrus wa mm. kan'aan wa man malakal arda wa wallaahu dëgg la de ayna firawna ayna aad mm. ana ñooñ xam nga ne kutiba dogaleef na naa'ib faa'il yaa euh, mu ne kutiba dogaleef na doo ko bind doo ko doo ko firee ne bind na dogaleef na waaw lu mu dogal almootu dee si kana alal xalq si mbindeef mu ne fa kam kooku kam mm. xabariya la mm, xibaar dafa am kam istifhaamiya mm. bu dee kam istifhaamiya day xibaar wala mu màggal wala mu bëril bu dee kam istifhaamiya si grammaire yaa ngi dégg euh, day day laaj comme kamis saa kooku day laaj istifhaamiya la mm-hmm. te buy laaj day nasab mm-hmm. mais bu fekkee kam xabar yi la mm-hmm. day bëri wala mu màggal wala mu xibaar fa kam fal la bëri na su tojee wa af naa mu jeex duwal nguur mu ne nag ay na Namruus moom Namruus ana Namruus wa Kanaan ak Kanaan ana ana Firawna hmm, man malakal àdda ñi nga xamante ne yàlla da leen joxoon nguur ñu yilif àdduna penkox saw man rafa al ahla nga xam ñu daan yëkkati pale yi nu mu jën kawee rek hmm. mu ne tey si ñooñu koo gisatoo si kenn ñëpp ku si nekk yaa ngi wéet sa bàmmeel la nga daan jëf bu dee lu baax la moo la fay fekk bu dee safaan la loola fay fekk. maam lu yàlla nam ma jeexal rek. waaw dina ko jeexal waaye lu yàlla namagul mu jeex. du jeex waaye imaam. waaw léegi tey ci alawul insaan yi nga xamante ni. Mm-hmm. teggin yi nga xam ne tey. Mm-hmm. am na société bi. Mm-hmm. mooy teggin suñ ko waxee mooy. tey pour nga gis nit dëgg-dëgg mu làmboo teggin yi war ci moom. bëreetul léegi nga xool tey société bi ni muy dundee. ba ba nit ñametul sëñ yëkkati kàddu wax nit sañatul digle dara léegi loolu jàngat boo ci am imaam rek ñu dugg ci yontu yàlla Muhammad salaasa xamoo euh, mooy li ma wax rek nit ñi suñu demee ba teggin amatul bu demee ba lu waaye jot wax xalab waxee nu mu ko neexee waaw waxee nu la neexee bu fekkee ne nit ñi dañoo perte seen repère gis nga li ma doon wax sànq imaan si ku mu ne rek. Mhm. lu ñëw rek da ngay xam ni nga koy dékkoo. Mhm. waaye nit ki nag wàllu diinam bu ko sàmmul. Mhm. wala bu xoolu diggante ma boroomam rek. lu ko neex mën na def. nit doomu aadama. su xoolu suñu borom rek lu ko neex mën na def. xam nga yonent bi salaasan dana nit ki boo demee ba amatoo kersa defal lu la neex. waaw kersa moom tumuraanke ni voilà kon nag. Euh, nit ñi il faut ñu dellusiwaat seen xel xam ne yàlla moom moo ñu bind. Mm-hmm. moom mooy dogal nu mu ko neexee si doomu aadama. Mm-hmm. waaye nag doomu aadama nag. Euh, inna allaha laa yughayyiru maa bi qawmin hattaa yughayyiru maa bi anfusihim. waaw loolu dëgg la moom. yàlla du soppi kenn nag. waaye doomu aadama moom mooy soppi. boppam boppam alxalaal bayyinun wal xaraam. bay bayyinun mm-hmm. ndax lii li dagan. leer na hmm. li nga xam moom moo xaam leer na nañ kon amul dara loo xamante ne doomu aadama mën na wax ne lii wala nii nangamaax nangamaax nangam waaw waaw maa moo tax imaam damay fa doon si nga waxee léegi ci kersa bëreetul mhm. parce que waykat bi dane man jaxala xayaa saw boo lam yuraan naas ayibahu mhm. mu ne kii nga xamante ne góorgóorlu na ba def ci boppam jëmm yére kees sax mhm. mu ne ay ayibam kenn du gis te may faral di wax ne fii jamono toll ñun ñëpp nañ ko bàyyi xel mooy jamono juñ tombee dañoo tombal jamonoy caméra jamonoy vidéo mhm. nga xam ne nit ki bëy na looy def ngir bëgg ko la xam mhm. nga génne say cër mhm. balaa yàgg dara fii ak vingt ans say doom ñëw ñu ne diw de yaa fi def lii ndax walaa tan sa tuulal dëxëri laa tan sa lay tan sa biaa fiaa yuy dal yóbbu mooy guddi yëg bëccëg yi ngi dem suba di am bëccëg di am guddi di dem mooy li lu mu fa mënti jëf say ay bise ñëw ñu bamtuloo ginnaaw ñu ngi ci àdduna di dem mooy nañ fexe mu rafet te li nga wax léegi rek mooy tey bu ñu lay lim ne fir aw na jaar na mel ne fir aw na démb la fi jaar bu ñuy wax canal day mel démb dafi jaar mhm. ñoom lam rouge ñoom ñëpp ñu lay wax waaye li ci am solo mooy mhm. tey su ñu waxee yonent yàlla Moussa da nga xam ne ah kon def lu baax am solo mhm. bu ñu waxee yonent yàlla Ibrahima nga xam ne def lu baax mais tey bu ñu tuddee na nga xam ne lam doon def tey ji dara amu ci sens kon ñun tey toll na tey ñun ñi nga xam ne ñooy dundee diine ji di ko wootee bokk ci daayatu imaan mhm. ñu xam fi ñu teg si tànk mhm. xam ne di coow di bëri bëri bëri bëri war nañ xam ñun fan lañ bokk mhm. te damay faral ni àdduna bi mu sosoo ba léegi ñaari kuréel rek moo fi nekk benn kuréel bi mooy ñi nga xamante ni ñoo ànd ak yonte yàlla Muhammad te yàlla ne ñooñu ëllëg mooy ñu nar a ñoo ñooy ñuy taxi beneen bi ñi nga xam ne topp nañ ci yoonu seytaane yàlla ne ëllëg booy wokkuy perte fa nga jëm te imaam ginnaaw yi nga fi wax yëpp am na solo mooy dugg nga ci wàllu jukko yi ak yonte bi mu def si nit ñi ma jëm ci ki nga xamante ni mooy daj dëpp gi nga xam ne situation li mu critique critique critique moom rek moo ko mën a lijjanti muy yent yàlla moom moo tax maam Abdou ne xutbu taaha nabi mm-hmm. fardi wa nafli mm-hmm. mu ne bëgg yent yàlla Muhammad mm-hmm. man Abdou mooy sama farata te mooy sama naafila la daan na wax ne man Abdou su ma maree naan sax bu ma jox jox ma kaa tëddal yent bi ma màndi su ma xiifee tëddal yent bi ma suur mu ne yent bi mooy sama alal mooy sama doj mooy sama kaaba lépp lépp lépp mu ne yonent yàlla Muhammad la. waaw xamoo yonent bi salaa eh, la boroom imaam Arusi wax. Mhm. dana fa tabarraku bi bi madixihi wa bi zikrihi fa inna mhm. ah. mat xixi si tagg gi nga koy tagg mooy ñoom sóora ak ñoom Seyna Alioune Diop. tagg yonent bi ni ñuy taggee yonent bi sallallahu alayhi wa fa tabarraku ne ngi si barkel bi zikri yi ak tudde gi nga koy tuddee ma mhm. ni saxal xaaji Malick si radiallahu taala anhu mhm. moom cër bi mu am si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa lenn rek la mhm. mooy fexe ba sax ana mu koy gàmmul gàmm gi mooy euh, li nga xamante ne moom mooy guddi gën a Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boobu mu téree nag mu ne loolu barke la am na nag ñu ko dàq nag mm. waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy nit yàlla yi mm. ñoom dàquñu ko. ah ma ma ah. tabarukan si diine nangu nañ ko. Ah. nangu nañ ko. Mhm. tabaruk mooy loo xamante ne boo si barokol mhm. tabaruk mhm. boo ko defee. mooy dangay ngay barkeelu si loo xamante ne yiw sa lay doon. mu ngi mel ni tey boo demee si téere aqidatul mu'min bu imaam Aboubacar Jazair. dana tabaruk nangu nañ ko. mu ngi mel ni tey. Mm-hmm. Mm-hmm. biiru zam-zam mm-hmm. zam-zam ndoxu zam-zam ñu indi ko nga fexe ba naan si ah. ndax fa mu jógee ah yenente ba mu jaar ah lañ si wax mu mel ni alxuraan nga def si tabarruk kon sañ nañoo sañ nañoo màggal li nga xamante moom mooy guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne fata barraku na ngeen barkeelu bi matxi yi si tagg gi nga koy tagg wa bi zikri ah tudd gi nga koy tudd دقني ومدخل مصطفى ينن والله حبيبي ربي ذي الوفاء المنتمي لشرفاء فياله من زائره فمدحه عبادة وخبه شهادة والذكر زيادة يفوز بالذاكر أخلاقه متر أصحابه البرر سيرته منورة وذو البهار زائر هو الإمام المرتدى ينن حائدنا إلى الهدى معيشنا من الردى في ذا الزمان الجائر أخلاه خير النسب والله ورته خير العرب وأمه ذات الخزاب ذات الجمال الجائر منصور يا الله يرحمه li mu wax yonent bi neex na de waaw fa inna tan dane moom mooy màggu dayo Hmm. imam Marasi inte at taazim wa tabdil am màgga ba tey ñu ne lu tax fa kullu minhum bépp yenente ëllëg ta te zillu liwaahi si si suufu keru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la ñuy kerloo hmm. ah. yomal jaza bu su pay ba hmm. isil waquf ndem ndem taxawaay ga tawilu noonu lay guddee allah moo tax xam nga yomal xiyaam ñu ñëpp dañuy jaaxle yomal xiyaam bu ñu dekkee dañuy jaaxle ndax dañuy dañuy xam ne ne yomal xiyaam taxaw na ñëpp xam na këru dëgg gi moo moo nekk nii ku si ne hmm. da ngay tiit si sa bopp tiit goo xamante ne ba nga juddoo ba ni nga ba ba ni nga tol hmm. mosoo ko tiit ñu daal di dem dem si maam Adama ne ko waaw dañoo bëggoon yow maam mhm. Adama nga nga nga maam Adama dem leen si yent yàlla Ibrahima. saaxibil xawdil mawruud. ñu foog na maam Ibrahima dinañu wàllu mu ne defoon naa loo xamante ne. mosuma bàkkaar boo xamante ne xaw ma ndax sunu borom jéggal nañ ko wala jéggal dem leen si ki nga xamante ne moom mooy noox ay Mustafa saaxibil xawdi yu dem si yent yàlla noo foog na dina tane mu ne man de defoon naa sama borom loo xam ne xaw ma ndax baal na ko wala baal na ko dem leen ci saaxibil xawdil mawruud dem si xóot bi mu ne man de defoon naa sunu borom loo xamante ne xaw ma ndax borom bi jéggal na ma wala jéggal dem leen ki nga xam ne moom mooy Moussa alayhi salaatu wa salaam. saaxibil xawdil mawruud bu ñu demee si moom moom tamit yonent yàlla Moussa man de jeex defoon naa loo xam ne xaw ma ndax sunu borom jéggal nañ ko wala jéggal dem leen si ki nga moom mooy Isa alayhi salaatu wa salaam. saaxibil xawdil mawruud bu ñu demee si yonent yàlla Isa mu ne ne man de defoon naa loo xamante ne xaw ma ndax sunu borom jéggal nañ ko wala jé dem leen si safi ul xalq saaxibil xawdil mawruud ñu dem si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina moo tax Seex Al Hajji Maalik ne fa yaa xayu yaa xayuumu yàllaahu bi xayri bariyati saaxibil xawdil mu ne fa yaa xayu oo naa ki nga xamante mooy dund dund gu amul fu mu yem yaa xayyumu ee eh, yow mi nga xam ne yow yàlla yaay taxaw taxaw jàmm fa yaa xayyu yaa xayyum yallaahu rabbana ilayka tawassalna bi xayril bariyati fa yaa xayyu yaa xayyum وصلنا ñëwee si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama xeet mhm. xeet bi yëpp daal di ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si alxam si alxaaji maanaam si wal xib bi mhm. ku du soppaga te muy Seydina Muhammad sallam moom suufun ku ñu melal nga mhm. bi rëhmin si tiitaanga war rax bin ak si tiit ba tey dafa am tiita tiitaanga boo xam tiitu jëmm la mm-hmm. mooy ki nga xam day pat pati ba mm-hmm. yaram bi ñëpp xam nañ ki defati am tiitaanga boo xam tiitaanga xol la mm-hmm. sa yaram mën na bañ a pat pati waaye su xol am lu muy yëg si tiitaanga xam nga tax xamoo ne e, la koy njëkk a waral nag mooy yàlla dafay wàcc li nga xamante ne moom mooy jante ba mu tolloo suñu yóor yi tàngaay bi daal di metti ñu ne foofu nag. ku si ne selon sa bàkkaar na mu toll rek. noonu ngay labee da ngay di ñaq am na ñoo xam ne seen ñaq. seen cetu baaraam la leen di la la leen di la leen di toll am na ñoo xam ne seen oom am na ñoo xam ne seen digg am na ñoo xam ne da leen di mbuur dañ siy lab ndege seen bàkkaar yu bëri. Ah, lépp ci bàkkaar la. moo lépp si bàkkaar. moo tax. seen xaaj ma am na fu mu koy waxee si zajarul xulub. imaam li ma gën a yem ci yonent yàlla Muhammad <laughs> yàlla yàlla fayal la. xëy na a ñett tuuti te xam naa ni nga li nga bëgg a leeral bëri na te foo dugg rek fay bëgg a yàgg mm-hmm. mooy lépp xam-xam moo ko waral mm-hmm. waaye damay faral di ni xeetu yonent yàlla Muhammad munu ñoo fay yonent yàlla Muhammad ndax dafa toll ci ñaar bàyyi fa xel xa bàyyi fa xel xeetam mm-hmm. muy yonent bi na bu guddi gi xaaj mu def ñaar raak ne allahu akbar yàlla ummati ummati yàlla ëllëg sama ginaar nooy def ak sama xeet ëllëg nooy def ak sama xeet yowmal qiyaam yonent bi dem ba toog ci lalu sukuraat di ne jibril ñëwal mu laaj ko nekk ëllëg yàlla ñu muy def ak sama xeet nga xam ne xoola fi mu toll mu dem ba guddi gi kukk mu jug tal xeetam mu dem ba toog ci lalu sukuraat tal xeetam moo tax xeetu yonent yàlla xam Muhammad mënuñoo fay rasulillahi kon li am ba am yàlla ñu ko yàlla fay imaam mooy léegi dégg naa say biir wax nga wax lu am solo nga ne yomal xiyaam li muy tar tar tar waa ji rek mooy dekki ànd ak sogoom di bàyyi Fatima nga di bàyyi roqay nga xam ne kubra la dem ni ibni islami min bannaati rasulina roqayatun faftafa xaafaxaa faftaxu mi yàlla na ko yàlla fayal xam mhm. dafa wax wax ju am solo ak sëñ Tuuba waaw suñu maam ne ihfir li ummati am yar bi warxam bi ummatihi mhm. wasturullaha wajburanha rabbi yàlla am yar bi mu ne yàlla yow yàlla yàlla nga jéggalal xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suturaalal leen mhm. te gi nga doomu aadama li ëpp solo si moom moom muy suturu yàlla ko am na ñoo bu seen suturu xawee koo rek mhm. ñu dee léegi ba yowmal xiyaam nit naa yuuxu dina jóg fu ñu ko foogeewul mhm. kon yàlla nañu yàlla suturaal ami imaam eh, sëñ Tuuba wax wax joo xamante ne du bi ma ko njëkkee dégg wallahi azim sama rongañ benn tokk mën a cas man mhm. a xoolal lii rek mhm. mu ne bi mu ne irxam jami al waral allahu akbar xam nga kooku amul sette bàyyiwul kenn dana yow yàlla jéggalal mbindeef yëpp kenn génnul kay kenn génn kon ñoom xam gi ñu xam yàlla moo tax ñuy dimanche moo tax ñu waxee. ah wa jannaatu arduha ka xaddi samaay kay yàlla kay nee na sama yëpp man yéen a xat waaye man xatuma moo tax mu ne moo tax suñu maam borom Tuubaa yàlla ñu ko yàlla fayal di ñaanal ñeneen poroxaan yàlla yàlla defal leen sutura yàlla ñibbi si jàmm ci barke yonent bi ndax boo déggee suñu maam borom Tuubaa la mu wax yonent bi mhm. ni àdduna mhm. muhammadun zinatu dunya wala sutuha mu ne da nga soxna jaar mu ne mu ne mu ne yonent yàlla Muhammad suñu maam borom Tuubaa bi mu ne àdduna bu fekkee taar am na fi mhm. ki taaral àdduna mooy yonent yàlla Muhammad mooy zinatu dunya ndax lam lam yàlluq fi fadaa ili kaw ni tal atuwo tabqal bariyati fi zalma i yàlla mooy yonent bi su ñëwul woon nit ñi des si la ndëm waaye mooy zinatu dunya waaye wa lazatuha mu ne àdduna bu fekkee am na bànneex bu nit di dund saaliw saaliw mi ne ci réseau bi sa sëriñ Seexul Xadim bànneexu àdduna kenn la woon muy bàyyi Fatima di yonent yàlla man kon imaam na si ñu ngi leen di jaay jëfal waxtu bi ñu amoon xëy na waxtu bee ñu dab mu xaw a xat lool waaye xëy na li ñu bëggoon sotti bëri na yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla barkeel su ko defee imaam kàddu yu mujj. waaw di sant yàlla rek. Mhm. nga may faral di wax ne sant yàlla dina mag dara jënu kaa màgg ngi santaat yàlla bu baax a baax. Mhm. di ñaan suñu réew mi mhm. yàlla na si yàlla def jàmm yàlla def fi sutura. Eh, di nuyu tamit. Eh, samay wéejur waaw di nuyu tamit eh, kii samay wéejur papa da Samb di sama papa mhm. mère Ndeye Gana Seck ak famille bi yëpp mhm. di ñaanal sama sëriñ xam sa Fall mhm. moo ma yar moo ma jàngal moo ma jox salaatul fatiha ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla guddal fanam yàlla may ko wér ak xalifa généraux yëpp di nuyu ñëpp daal jërëjëf imaam kon imaam la si yàlla yàlla fayal la su ko defee may ni bàyyiloo xel ni ñi nga xam ne yéen ngi safoo seen télé référence TV rawatina seen émission bi nga xam ne mooy xutbu taaha mu ñu dalaloon tey suñu sëriñ di imam di professeur yor daara fële ca wetu kër Baay Iliba di ko ñaanal yàlla baax di ñaan mboolem autorité yi nga xam ne ñu ngi dëkk te nga ñëw jàppale ko ci daara ji nga xam ne mu ngi fa internet xale yi di leen jàngal alxuraan ak ak seen wàllu école di ko ñaanal yàlla imaam la si yàlla yàlla dool sutura di ñaan mbooleem ñi nga xam ne mën nañ cee jàpp yàlla jàpp ci daara ji yàlla suturaal la ci barke góor gi Baye Amsata di ko jox wàcc waayam tamit di ko ziar suñu baay yu baax boobu di Baye Amsata Fall yal na yàlla guddal fanam yàlla wéral ko ci barke yonent yàlla ma mi kon maam Mansour looy tàggoo. xalifa ñu ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax a baax di nuyu képp koo xamante ne rek yaa ngi dégg rajo bi. Mhm. di nuyu ki nga xamante ne moom laa àndal. Mhm. di sama xarit sama lépp di seen Alioune Diop. di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam. di ko ñaanal yàlla daal di la nuyu yow mi nga xamante ne. Mhm. mën naa ne tey suñu teewaay ci kër gi yow yaa tax. di la ñaanal yàlla yàlla gën a leeral ko xam bi bi yaay Nabi sallallahu alayhi wasallam di nuyu samay wéjur mu wéjur bu góor ak bu jigéen di leen ñaanal yàlla guddal seen fan ak sama kilifa di xaaji Bokar jàllo di ko ñaanal yàlla moom tamit yàlla yàlla yokk leeram xam na di jàllale waal rek suñu bis bi ci mm. la 4 mars insha allahu rabbi di fii nii ci sañ mm. ci jumaa Caareen mm. jàkkee Caareen insha allahu rabbi ji Birane Boy suñu waay suñu lépp mën naa ni ñoo koy taxawee ak oustaz xalifa mii nga xamante ne moom mooy taaral bés bi incha allah rabi moo ko naroo waxtaan yi incha allah du si képp koo xamante ne rek yaa ngi ci mm-hmm. dëkk bi di béggee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ñu ngi bi mm-hmm. tabarakallah sénaali looy tàggatoo waaw kay alifa ñu ngi lay ziyaara bu baax baax ci la béggee di nuyu suñu kilifa gi oustaz Kassi bu baax alxaaji di suñu lépp di nuyu bu baax suñu wéjur bu ñu baax ci kër ga. ñu mm-hmm. yaay aji jaañ. Mm-hmm. di suñu papa di nuyu suñu sëriñ tamit muy. Mm-hmm. sëriñ Mouhamadou Moustapha di ko ziar bu baax a baax mu ngi jox guddal fanam. ah ti jaarale suñu bés bi Mansour wax ci le 4 incha allah rabbi mars. ci sàkku teewaay ñëpp macha allah. autorité yëpp ñu ngi seen teewaay. ci ci sàkku ñaan tamit macha allah. Hmm. sa xarit ñu baax ñu di ko taxawee. waaw waaw borom xam-xam bu mag ndeysaan day laaxatu rek. <laughs> di koy ñaanal yàlla baax moom tamit yàlla defal ko jàmm. defal ko defal ko tawféex. bi jaax yonti yàlla Muhammad. di daan booy di ko taxawee ak ñoom mosul ñi nag ñaan bu baax a baax a baax a baax di woo ñëpp. la 4 mars incha allahu rabbi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf Seydina Ali ñuy am mbégte lool di ànd ak yéen bi nga xam ne mooy xutbu taaxa hmm. comme ni ma koy faral di waxee chaque jour den faral di dalal dalal borom xam-xam ak ñi teg yonti bi ci mbooleem kër yi nga xamante ni nit a ngi fa den fa dugg woote fa ngir nga ñëw bëggal ñu ci yonti yàlla Muhammad rawatina diina ji nga xam ne ñun ñëpp ko bokk di ñaan yàlla réew mi di Sénégal yàlla def jàmm di nuyu ñi nga xamante ni ñooy waa Kénkaari bi sopp sëñ Abbas Sall ku mel nii sama sëriñ Modou Wade di ko jox wàccu am ak baay Gora di leen jox wàcc di leen ñaanal yàlla bu baax a baax di sama sëriñ du ma la fàtte di saaxu ilmaan ah di ko jox wàccuwaayam yàlla yàlla dool suturaam bu baax di nuyu nag ñi nga xamante ni nag mooy waa Bamba waaw waa Bamba di nuyu ñoom ñëpp ñoom Assane ñoom As ñoom Baye Abdou ñi sama waa ji xam ne mooy borom xel xom couture di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla bu baax di nuyu sama sëriñ sëriñ As Malick Dieng borom léppay baax yàlla yàlla dool suturaam bu baax a baax ak sama sëriñ Mouhamad ñoom ñëpp di leen jox wàccuwaay di leen ñaanal yàlla bu baax baax di ñaan sama góor gu baax googu du ma ko fàtte mukk di ko jooy di góor gi Alioune Diagne Fatiha yàlla yàlla dolli suturaam bu baax baax yàlla leeral bàmmeel ak sama maam ju baax jooj di alaaji Moustapha Diagne di nuyu sama waa kër maam ñoom ñëpp di leen jox seen wàcc waaye di leen ñaanal yàlla bu baax su ko defee mbokk yi moo ngoog di leen woo ci bis bi nga xam ne di dimanche bi ñu jëm di bisu ziar ki ko woote mooy kan mooy Mouhamadou Amine Mbaye ak Tidiane muy dimanche bi nga xam ne ci lañ jëm di ci woote mboolem ñi nga xam ne ñoo dëkk guy woo nga xam ne seen doom moo xewle seen mbokk seen xarit imaam Lamine Mbaye ak Tidiane yi di ci woo mbooleem ñi nga xam ne ay taalibe ne ay soppeelam rawatina képp koo xam ne yaa ngi wuyoo ashadu an laa ilaaha illallaah wa ashadu anna Muhammadan di ci woo ñëpp mboolem ku yàlla bind rek ñu ngi la ci woo muy dimanche bi nga xam ne si lañ jëm di ziar di bis boo xam ne bis bu am solo la nga xam ne dinañ fa jàng alxuraan def ay dog tëbbu fa di ko ñaan yàlla yàlla yàlla doo sutaram bu baax yàlla ko yàlla may mu eggale sagoom ci barkent yàlla Muhammad di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci caméra bi ni Haaji Tanoor mu baax ma la yàlla yàlla dool ak soxna Kumba di kama di ko yàlla bu baax a baax ak ki nga xam ne moo nekkoon ci réseau bi sëñ Momar yàlla yàlla guddal fanam yàlla dool suturam di nuy directeur bi di Mouhamed Cissokho yàlla yàlla dool suturam bu baax a baax ak borom kër gi ñoom ñëpp yàlla yàlla mottali télé bi yàlla si yàlla teg loxo ci barkent yàlla Mouhamed kon mbokk yi xaqaqa di mi daal Mansour looy tàggatoo yaa xalifa yaa xalifa tijaano ya xalifa ya xalifa tijaano Serigne Babacar ya xalifa ya xalifa tijaano ya xalifa ya xalifa tijaano zakariya yor tariixa leneen yaa tax ñun ba yu nu Maodo seet du nu xaare yaa xalifa yaa xalifa subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin alhamdulillaahi rabbil aalamiin